politique bi mais di ngeen jàppante mais yéen ñëpp ay Sénégal la ngeen yii bu amee doo ci xool kii dafay politique kii la bokkal langue wala kii opposition la nekk parce que ñun ñëpp ay bokk la di nga nekk ci benn kër ñii ànd ak Ablaye Wade ñii ànd ak Macky Sall ñii ànd ak euh, keneen ak keneen ak keneen loolu aussi nit ñi dañ ko war a xam ni politique du noonoo politique ñàkk bokk gis-gis la mais du noonoo am na ñoo xam ne bokkuñu gis-gis mais dañ duñ samay noon man aw ma noonu. waaw xëy na nit ñi def ma noon mais man du ma seet noonu. waaw déedéet ba noonu wu ma kenn.